salaamaaleykum c'est Abdoul Diégui Diagne ñu gën ko xam ci turu Diagne Blues nekk le président de l'association Weer Werlé Family Weer Werlé aussi nekk benn association buy œuvre ci développement ak social nekk benn association boo xam aussi dafa dajale ay médecins infirmiers technicien en santé jaaykatu blouse mécaniciens yi ci hôpitaux yi ainsi de bon di wax ni tey aussi dañu ñëwoon fii ci GOT gott nekk daara sëriñ Saliou Mbacke muy daara bi nga xamante ni aussi yàlla dogal na ni moom la sëriñ Saliou njëkk a sanc fii ci Sénégal mu nekk à douze kilomètres de Thiès tey ñu ñëwoon fi aussi pour saytuwaat xoolaat aussi sunu raq yi fi nekk sunu jarbaat yi sunu doom yi ci seen mbiru wér-gu-yaram ñu gën koy xamee ci consultation médicale gratuite boo xam ne dañu ñëw saytu seen wér-gu-yaram te duñu fay dara tey lu loon sunu sabab. moo doon euh, xëy na loolu mais ñu fi ñëwee aussi wax dëgg yàlla li ñu fi gis dal na suñu xel et ñu ngi def aussi appel ci daara yi nekk ci Sénégal yëpp ñu ngi def appel ci daara yi nekk ci Sénégal yëpp vraiment nañu royaat encore une fois ci daara bi nekk Goth parce que ba ñu dikkee ñu wax dëgg yàlla indi nañu ay garab indi nañu lu nekk mais aussi dañu fi fekk aussi ci volet sanitaire bi dal na sunu xel et di leen ñaanal encore une fois di wax ni aussi. jaa jaajëfee Serigne Touba et jaajëf aussi Cheikh Ahmadou Khadim di ñaan aussi chaque année rek ñu ñëwaat fii mu tombé aussi tey le 27 hmm, nekk anniversaire le 28 le 27 way nekk anniversaire sëñ Saliou Mbacké Cheikh Cheikh Cheikh Saliou ku ci nekk xam na ni ren mooy euh, douze douze ans ba mu dodo ak léegi. anniversaire am tey aussi wér-wér lay ñëw fii di def suivi médical bu mel nii vraiment consultation médicale bi di ñaanal aussi vraiment waa got ak euh, tund wi yëpp yal na leen yàlla dafa jàmm di wax ni aussi vraiment kontaan nañu suñu xel dal nañu lu ñu gis ci daara bi. waaw tey ba ñu fi ñëwee aussi gis nañu am na 172 xale yoo xam ni saytu nañu seen wér-gu-yaram. waaye vraiment suñu xel comme ni nga ko waxee dal na waaye am na ci juróom-benn ba juróom-ñaar yoo xam ni il faut xëy na ci fan yu néew ñu yóbbu leen Thiès gën xoolwaat xoolaat liñ fi lu ñu gis ci ñoom ñu gën ko seetluwaat ba gën ci am lu ñu du leer mais vraiment du ay cas yu doy waar trop mais ay cas la yoo xam ne xëy na ay problème urologie la dentiste ainsi de suite il faut aussi ñu yóbbu leen gën ko saytu vraiment encore une fois di wax ni daal sunu xel dal na ci li ñu fii gis quoi. maaleykum mbooloo mi euh, xanaa di sant rek di gërëm ñi ñu fekk si. man maay Debbo Ba ñu may wax bàjjen di trésorière wér-wér la famille euh, nekk tamit euh, infirmière ci hôpital régional bu Thiès ci urgence euh, di sant ñiñ fi fekk ndaxte man bu ma doon dégg daara surtout daara bu nekk ci village dama naan xale boo demee da ngay fekk ñu am ay góom am ay gaañu gaañu wala am koo nga xamante ne dañ leen di dóor mais wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee fii xale yëpp kuñ ciy consulter seet nañ sa yaram yëkkati mais gisuñu benn marque boo nga xamante ne si Euh, lu lu lu am marque bu gaañu gaañu boo nee dañ laa dóor wala dara xale yi set nañu nee nañ ñi ngi lekk ñi ngi naan kon nag ñun tamit ñi ngi leen di gërëm ñi nga xamante ne ñu yor daara ji di leen sant te ñaan yàlla aussi lii bañ a nekk euh, dernier édition ñaan nañ yàlla am yeneen consultation ñi ngi prévoir aussi euh, incha allah ci vacances yi bu ñu ngi ko yàlla mayee ñu indi fi ay urologue ay yeneen spécialiste yoo nga xamante ne si Euh, bëgg nañu def lu mel ni ay circoncision lu nekk daal macha allah bëgg nañ ko am na xale yoo nga xam ne tamit gis nañ leen fi ñu am yenn problème euh, problème yooyu incha allah ñun dinañ ko topp jël nañ seeni tuur ak yëpp dinañ ko topp ba yóbbu leen hôpital euh, ñu faj leen lu ci war rek incha allah di dinañ ko def bu soobee yàlla sant ñëpp gërëm ñëpp jërëjëf. Ah, je dirais bonjour à tout un chacun ah, aussi. juin anniversaire en ce douzième année, année que euh, Seigneur Saliou nous a quittés. Radiallahu anhu. Que la terre de Touba lui soit légère à jamais. Yàlla yokk leeram taas ñu ci barke bi. On venu aujourd'hui à Goth, réunir les familles en groupe. On a pu réussir la consultation médicale. Nous avons pu cons nous consulté enfants. Euh, les maladies qu'on a constatées, peut-être des dermatoses, et euh, deux à trois cas, on a eu des dermatoses. La plus euh, aussi, ce qui, on a eu aussi des parasitoses. Mais la plupart du temps, les enfants sont bien portants. Donc, nous sommes satisfaits de cette journée dans ce DARA. Parce que nous constatons dans les DARA qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de, de problèmes de santé. au niveau des enfants. Mais dans ce Dara, vraiment, on dire que ce, on peut dire, c'était vraiment impeccable. On peut même souligner par rapport aux malades, aux enfants que nous avons, le nombre 172, les cas qu'on a euh, détectés, vraiment, on peut dire qu'ils s'occupent vraiment de ces enfants. Si tous les Dara de ce Sénégal se conformaient comme ce, da, ce comme GOT, il y aurait moins de problème au niveau des enfants. Les logements sont là, ils sont bien nourris, bien portants. Même, y a une pharmacie au niveau du Dara et j'ai vu les médicaments. Vraiment, on peut dire que le Dara s'occupe, euh, il, il s'occupe de ses enfants. Et nous souhaitons que ça se pérennise aux autres Dara du Sénégal. Badien l'a dit tantôt, nous aurons les moyens de revenir. et de suivre les cas qu'on a détectés. Ce sont peut-être des problèmes bucco-dentaires qu'on a pu détecter, d'autres maladies, des dermatoses. À ce niveau, on va les à l'hôpital régional de, de Thiès, les suivre, Inch'Allah, et mettre ce qu'il faut faire, ce qu'il faudra. Nous le ferons Wérouwérlé. Donc, merci à l'équipe de Wérouwérlé. Merci à l'équipe de, de et euh, que la prochaine fois, Nous y serons, Inch'Allah, quand besoin est. Merci à tout le monde. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول nuyu mbokki julli di fi teew ñëpp di waa wér wérle famille ñu ngi leen di nuyu ci turu mbokki daaray Gody yépp di leen jottali nuyoo bu sëriñ Jili moom sëriñ Saalix di leen xamal ne seen teew fii di bég na ci lool loo ngay it bég nañ ci waaye ñi ngi séntu lool ni yéen it ci bég mbégte loo xam ne dana sax dàkk ndax barab bi teew fi barab boo xam ne mille neuf cent trent six la ko Sëriñ Saalihu sancoon booba ak léegi ñi fi wattu alxuraan kenn xamul num toll kon barab bi day mel ne saf na sàpp si nin ko mën a waxe ci alxuraan am nan yaakaar ju leer ne lii ngeen somb mu ngeen ko dëkkalut saa su ne sunu borom dana leen ci defal ndam te lii ngeen nekk it danañ wax ci xale yi ñu di leen ñaanal ba bépp ascension bu ñuy dégg seen bos bi gën cee kawe te yaakaar nañ ko ci lu bari ndax comme bis bi boroom daara ji nga xam ne moo ko sañcoon bis bii la ab yëfam matoon liggéeyam matoon mu delluwaat ci sunu boroom eh, beneen bi soppaat bisub ajima it ci jàngkat yi dañuy wax ne sunu boroom da ciy ñu nungu ñaan loolu it ñu amaat ci beneen yaakaar bu wér yaakaar bi si toppaat it mooy barab bii musuma gis ku fi ñëw ma fas si soxlam ñaan ko te teelu ko te suñ boroom faju ko loolu ñu ngi leen koy leeral ndax li ngeen def li tax it ñu jàpp ne lépp dangeen ko ci am ndax ndigal dafa am solo te da ngeen ci am ndigal moo tax ngeen ñëw fi te Serigne Saliou xëy na nekku fi waaye mi ngi fi daawut may ñëpp ñu ñëw ci ay daaraam kon képp koo xam ne rek ubbil na la bunt maanaa war ngaa dala sa xel tee dem rek dangay ngay da nga seet sa bopp waaye Sëñ Saaliw képp ku ubbil buntam rek am na ci yow yaakaar ndax kenn nattaliwul li ñuy wax ba xal bi moom am na ko maam li li ñëwagul mu di ko gis moom kenn amu ci sikk sàkk ne ne ne am na ko fi wax ne ndigal yi it sëñ bi daa wax ci am mbindam ne bu leen def dara ci lu dul ndigal ndax ndigal mooy sart bi tax jëf di nungu kon alhamdulilahi rabbil alamin ba ngeen amee ndigal loole ndax suñ moo ne laa tafaloo say an bi xayri isni fal isnu sartun fi xabooli saxni kon ñu ngi ñaan ci yàlla ak sëriñ bi fépp fu ngeen bëgg àgg suñu borom kàttan leen ba ngeen àgg fa te am nañ ci yaakaar lool fii nag ñi fi ñëw ñi fiy ñëw ñu mel ni yéen bëri na lool waaye ñun ñii fi nekk de ni ngeen fi ñëwee am na nañ yéen yi buñ sañoon kenn du leen si gën a kawe ñun suñu yéen àgg na foofu si yéen ndax pas-pas bi ñu gis ci yéen pas-pas bi nga xam ne moom ngeen ñëwee ak yaatu gi taxaa daal buñ manoon leneen lu bokkut ak ñaan incha allah taala li ngeen yittewoo da ngeen ko yóbbaale. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, bonjour je me nomme euh, Bokar Diagne je le coordonnateur national du de l'association Werwer les familles. Euh, Werwer les familles est une entité qui regroupe euh, des jeunes euh, professionnels de la santé tout ce qui œuvre pour le bien-être de l'enfant. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de notre programme de week culturel où on a démarré hier avec euh, une journée de prière à la mémoire de Feu Abdoufal, qui était le responsable de la communication jeune, de la commission jeune de l'association We're les Family. Aujourd'hui, nous sommes ici en consultation gratuite au Dara de Goth, un Dara mythique, euh, plein de symboles, où on a eu à consulter 172 euh, talibés et détecter quelques cas. Euh, nous rendons grâce à Dieu euh, parce que le jour coïncide avec le rappel à Dieu de feu Serigne Saliou Mbacké Euh, nous sommes extrêmement satisfaits et émus par rapport à ce que nous avons vu ici et à Goth. Nous avons été bien accueillis. Les enfants sont bien entretenus. Euh, l'environnement est un environnement sain pour l'apprentissage. Euh, du Coran et de la Sunna. Euh, donc nous rendons grâce à Dieu et nous remercions très vivement euh, les responsables de ce Dara pour l'accueil et la confiance qu'ils nous ont accordée pour nous ouvrir les portes de ce Dara pour nous permettre de faire cette activité qui est la consultation des 172 enfants talibés. Euh, le programme du week-end culturel va se poursuivre avec demain au poste de santé de Cité-Lamy euh, la, une consultation en faveur des femmes pour le dépistage du cancer du col, du sein, du de l'utérus et le cancer du sein. Donc ce sera demain à partir de huit h au poste de santé de cité Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions très sincèrement l'ensemble des membres de Werwer les familles qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Nous remercions aussi l'ensemble de nos partenaires qui œuvrent pour le développement et le bien-être de l'enfant, à savoir la Fédération Kadior Djanken, ANAS, les pharmacies, les médecins qui sont qui nous ont pour euh, les médicaments que nous avons amenés, qui nous ont pour les quelques condiments que nous avons amenés pour, pour, pour, pour les talibés et pour le Dara. Nous remercions tout le monde et nous rendons grâce à Dieu. Serigne Saliou yàlla yàlla yokk leeram yàlla yàlla taas ñu ci barkeem jërëjëf